waaw na ngeen maa ngi leen di sant di leen ma jàppale seen Pikine ko xale yi ñor ko femme yi moo tax ma jël sama engagement pour ànd ak doo ko réccu non man gisuma kenn Lamine Gueye laa gis gisuma kenn moom laa gis waaw jigéen ñi moom ay jàmbaar lañ ku leen jàppale lu leen bëgg te lam dafa taxaw teem pour taxaw jàppale jigéen ñi jigéen rek moo ko ñor ak xale kii laa gis jikkoom doy ma Lamine laa gis jikkoom doy ma moo tax ma engagé wu pour dugg ci ñoom xanaa di leen sant di leen gërëm ñoom tamit ñoom engagement bi ma am pour jàppale Lamine te xam ne kii ku jàppale doo ko réccu ndax koo xam ne day boppam propre xaalisu boppam di def si xaalisam du pla du xaalisu gouvernement du ministre du député du kenn koosam la ñaqam la kon kooku yombul looloo tax na ñu jël engagement pour jàppale ko